Mounirou laa di ah, euh, c'est vrai jot na am na lu bëri lu mu fi def. cest à sur le plan matériel euh, mais il a lamentablement échoué sur le plan immatériel euh, damay fàttali encore une fois c'est très important. Mm que ñun bi ñuy fal président Macky Sall 2012. du woon pont du woon tali. du woon ay euh, infrastructure parce que kooku Ablaye wadd moo ko ko dàq fukki yoon ak juróom Ablaye wadd a montré aux Sénégalais qui que le rêve pouvait se réaliser moo tax ñii ko doon wax euh, euh, le le créateur des éléphants blancs ba mu ñëwee ci nguur gi wan na leen ne que les éléphants blancs mënoon nañ effectivement lu mënoon nekk la il a réalisé mais président Macky Sall bi muy ñëw. dafa ne déedéet. dafa ne Ablaye Wade dafa yàq nguur gi dafa yàq sénégalais yi de tel sorte que il faut que ñu defaraat le sénégalais. Hmm. tabaxaat ko moo tax du son fameux programme yoonu yokkute où il a mis l'homme au centre de tout. Hmm. wax cest à dafa wax li nga xam ne surtout soo ko xoolee tey jii ñun nga xam ne suñu alluwa sorwul mais quintessence yoonu yokkute président ci alxuraan la ko jëlee. Mhm. cest à nit ki la jël wàcce nit ki ni ko yàlla teralee ne nit ki laay defar. Mhm. ba pare mais malheureusement mais président euh, su deful euh, piir que Wade euh, ci wàllu yàq mais daanaka ñoo tolloo donc loolu mu nekk un bilan bi nga xam ne moi je le reproche. tey permettre na ma su ma bëggee dem euh, Thiès wala Saint-Louis taf-taf ma dem effectivement tey coupure de courant amatul ok tey y a des avancées y a des avancées mais tey y a un bilan bi nga xam ne maa ngi koy wax fii keroog te dama ne président sénégalais yi lebaluñ ko ko donc il doit fair en sorte que balaa mu fi jógee cette déchirure profonde qu'il y a entre les Sénégalais il faut que président règle ce problème là c'est-à-dire que il faut que mu fexe balaa mu fiy jógee le 2 av le le le le le 2 avril 2024. mu fexe ba sénégalais yi nañu menoon soudés dans leur divergence que les sénégalais reviennent à ce niveau parce que tey sous son magistère. il a créé énormément de frustration qui a généré énormément de méchanceté ñun Sénégal léegi nous sommes devenus extrêmement méchants ñun Sénégal actuellement nous sommes devenus à la limite des haineux da ngay xool professeur Mouniru jonkoon ci bopp koñ ba di xaar rek musiba dal ko pour Mouniru def la dara mais peut-être que li muy wax wala ki mu àndal neexu la cette déchirure les sénégalais ne vont pardonner au président il faut que mu defar ko te xam nga lu jur loolu dañuy nekk benn béréb nekk ci benn gox ma ne Mounirou ma ne euh, monsieur Diallo dafa ñaaw ah non non y' a pas problème euh, opposition la bokk garaawul. Hmm. ma ñëw ne non euh, professeur Mourou yërëm bi dafa xoteeku. Hmm. ñu ne ma noo kaay kaso. Hmm. da ngay dem kaso. c'est-à-dire que. ci ba ba dégg dégg nga Idrissa xam naa ci ni mu waxee mel ne moom ci euh, tontom bi ñu koy laaj ci ginnaaw njiitu bi Macky Sall bi mu waxee mu mel ne lu écarté Sonko ci wax ne moom il est encore maanaam nee na moom daal ndaw la xëy na na xaari <laughs> yeneen élection wax yu mel noonu Khalifa Sall laaj nañ ko ci France quatre mais ba tey sax façon bi mu tontoo loolu ku ne mën nga ci am sa jàngatu bopp boo déggee ñooñu mu mel na daal ci seen kàddu ñoom ñëpp rek mel na ne tàmbali nañoo raxasu ci ay mbiram pour ku ci nekk jublu ci sa mbiru bopp kay moom mu ngi koy écarté naan seen la. waaw mais kooku xam nga loolu mbirum c'est de la politique politicienne. waaw dafa am ce réalisme en politique. Hmm. te kooku ku xam président Macky Sall dama ko yàgg wax dama ne c'est un fin politicien. waaw. boo gisee ni mu njuujee waa parteem génnee leen boole leen ak sénégalais yi ne leen kaay leen sama waa parti ñi nga xam ne man ñooy ñoo ne ñoo may jàppale. kaay leen xool ñii. yéen a ma bëgg a dugal. fan ma bëgg a dugal. xam nga il pouvait il pouvait ba ko maire yi ne noonu dañu ñëw indi la pétition mu ne leen non non c'est pas la peine. dama war a wax. je vais parler mais dana na ñëw leen ñu ñëw télé yi taxaw mu ne Sénégalais yi xool leen soo ko xoolee ci biir wax soo ko xoolee ci écran bi gars yaa ngi wax muy reetaan am na ci kenn bi muy wax di wax bay jooy mais président mu ngi reetaan <laughs> mais malheureusement ces gens n'avaient rien compris donc pour dire une chose. mooy que voilà cette clientèle politique bi mu créer ñu dem nekk une minorité bi nga xam ne dañu jàppe seen bopp de sur-sénégalais qui ont le droit de vivre et le droit de mort sur tout le monde dañuy toog même sunu plateau yi ngay wax ak nit waxalu ko metti mu ne la noo je te je te je je je te fais envoyer en prison. c'est-à-dire je sais pas si vous essayez d'imaginer un peu. ñu toog ni ñuy waxtaanee nii man yow nga wax ma wax la li nga wax ànduma ci lii lii nga ne ma non soo continuer suba ma yóbbu la benn citoyen lambda. ba nga xam ne amul aucun pouvoir moo la koy wax. yooyu déchirure la président créé. te yooyu il faut que mu régler ko gis nga bu ko réglé dañuy wax ni que maa ngi ñëw sa question bi dañuy ñëw dañuy wax souvent ne que Sénégal dañu nekk ci benn euh, cercle ba nga xam ne lii ak lii ak lii ak lii dama ne c'est pas vrai on est dans aucun cercle dangereux le dernier rapport de crise de de de de International Crisis Group a montré que le Sénégal ne fait même pas partie des par des pays menacés il faut qu'on dise la vérité au Sénégalais c'est-à-dire le véritable danger mu ngi suñu biir ñun mooy ñàkk wax dëgg mooy ñàkk yemale sénégalais yi mooy ñàkk jox sénégalais yi ñu lekk mooy ñàkk jox sénégalais yi ñu naan mooy maanaam ñàkk respecter yelefu sénégalais yi c'est ça le véritable terrorisme c'est pas ce qui se passe au Mali parce que même Maliens yi ils ont compris que ce terrorisme là c'était des farces bu ñu ba jël responsabilité dàq Barkhane jóge fa dàq MINUSMA mooy que ils ont compris que ce terrorisme là c'était un terrorisme de façade loolu c'est pas nous notre problème ce pays là a assez de garanties pour vivre sereinement dans la paix dama koy wax chaque fois quand on prend des jeunes ku sant Diatta ku sant Sané ku sant euh, Badji di leen dugal ci benn benn benn benn cercle benn carcan rebelle MFDC je dis que MFDC 40 ans durant musul musul gañe musul gañe laa la wax quartier sax dafa bëri sous quartier à Ziguinchor musu ko gañe donc il faut que ñu respecter un peu l'intelligence des Sénégalais le danger c'est nous-mêmes mm-hmm. le danger c'est ce que nous faisons ce que nous nous faisons nous-mêmes entre nous léegi ci ci ci ci ci sa question. Mm-hmm. je disais que tantôt quand Khalifa Sall on lui pose la question sur Ousmane Sonko et le journaliste il a bien fait de lui poser delloo ko relancer ko ne ko non je parle de Ousmane Sonko. Mm-hmm. mu ne ko vous refusez même de prononcer son nom. mais ça montre ça montre que la ma doon wax ba ñuy teg yeewi askan. j'avais dit que coalition bi boo ci dindee ñaari nit. ñaari nit boo leen ci dindee ña sa des ñëpp c'est ça va la coalition là va être l'une des plus grandes escroqueries politiques à l'époque waa Pastef fii fu nekk saaga nañ ma fa non waa ji am na luñ ko jox dañ ko guuxal dañ ko sexal mais parce que béy ay xaj ak ay xaj ak ay béy mënuñu ànd c'est pas possible vous aviez un excellent projet de société un excellent projet de société comme Macky Sall en 2012 un excellent projet de société. jusqu'à présent. oui je dis mais finalement en vous accompagnant avec certains individus. tey jii. ils ont bouffé. voilà ñu ngi nekk di te man li ma leer li ma leer ba leer que. tout ce qui se fera ce ne sera ah, ba fii ba 2024 tout ce qui se fera contre le PASTEF ce sera pas l'APR du waa APR de c'est l'autre opposition là qui va s'opposer au PASTEF moo tax ma ne leen vous avez engraissé le verre vous avez permis au verre d'entrer dans le fruit vous l'avez engraissé vous lui avez donné des forces et vous l'avez immunisé et c'est ce vers là qui va se moo tax bu ñu taxawee tey naan Ousmane Sonko il est encore Chine. Mhm. Idrissa Seck. Mhm. pas sax mais c'est-à-dire cest extrêmement grave dans une république alors que la justice n'a pas fini de dire eggalewuñu le processus judiciaire yow nga mën a taxaw ne. ne Pape Sané mi il n'est plus candidat c'est extrêmement grave quand et on nous dit qu'on est en république xam nga en fait professeur c'est ça qui fait mal mooy moo tax dama kontaan bi nga rappeler ni que les critiques qu'on pose ici sont des critiques objectives pas des critiques crypto personnelles mais on est en république et ce sont ces gens-là qui nous disent que ñoom ce sont des modèles ce sont des références ce des républicains ñoom ñoo ñu bëgg a diriger non je dis encore une fois le président Macky maa koy sant maa ngi koy gërëm parce que il nous a permis encore une fois. Mhm. de comprendre que certains Sénégalais ces reliques moi je les appelle des des reliques de la vieille garde. Mhm. su président di dem na leen yóbbaale musée. comme ça Sénégal yi dem foofu di leen fa seetaan c'est là-bas leur place. jërëjëf doyen Pape Sané euh, docteur euh, Seydou Diallo boo ñu doon defal bilan donte moom nee na bilan jotagul waaye ñun moom dañ ko def ndax ku pare dem war nañ laa mën a commencer defal.